salaamaaleykum mbokki xaritu internet yu trois 313 digital gannaaw ba ñu leen nuyoo am nañu naqar actrice euh, bi nga xamee ni moom la ñu xëyee ci euh, bésu altine bile euh, kii la nag di Jean Paul ñu gën ko xam ci JP nekk acteur comédien foofu ci label de production bi di Even Prod moom nag euh, la ñu tàggee ci bésu tey bile gannaaw nag accident bu mu defoon euh, def ci lalu hôpital ya ñetti fan euh, tey jii ci bésu altine bile la ñu nemmeeku ne wuy ji na boromam kii di Jean Paul ñu fàttali leen ne acteur comédien la ci label de production bi ñu naan Evenprod Euh, ñu ngi ñaan yàlla yàlla yërëm ko xaare ko aljana yi gën a kawe ba tey euh, ci information yi nga xam ne am na ñu desandi euh, ci li nga xamee ni moom mooy ay décès ba tey ci groupe Futur Média foofu ca TFM ki ñu nemmeeku ne moom moo wuyu ji boromam itam mi ngi wuyoo ci turu Fat ki Kine Dem nekk journaliste foofu ca groupe Futur Média bu TFM moom itam ci bésu euh, tey jile la ñu nemmeeku ne wuy ji na boromam waaye nag ba tey xel mën a dal ci ñi nga xam ne ñoom ñoo wuy ji seen borom te ñu gën leen a xam ci ay euh, te ñu gën leen a xam ci média yi donc euh, ñoom nag dégg nañ ci ñoom ay seede yu rafet rafet yoo xam ne xëy na xel mën na dal ci ñoom lépp lu ci mënti am ñu ngi leen di ñaanal yàlla yàlla yërëm leen tas leen ci barkeem atte leen ci yërmandem euh, te nag euh, ñam fa fekk itam euh, yàlla yërëm leen ñu ngi ñaan yàlla képp koo xamante ne ni yàlla may na la ñaan nga bañ a fàtte ñilee ci ñaan ci bés bi nga xamante ne bésu cheikhul xadim la bés bi nga xam ne ci la ñuy màggal euh, demu géej ci nga xam ne moom mooy Ahmadou Bamba lii nag moo nekk information yi nga xam ne jot na fi rot ci ñaar ñi euh, ku ci nekk rek euh, nekk acteur boo xamante ne ni xam nañ la lool lool ci wàllu média ñi le nag ñoom ñoo wuy ji seen borom ci bésu tey bile mbokk yeeg internaute yu cent 313 digital ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax di leen fàttali ngeen di wéy di abonné tey bés ci cloche de bi bu ko defee lu ñu dugal rek ngeen mën ko am euh, te ngeen di wéy di continuer ak ñun ci suñuy programme jërë ngeen jëf